أعوذ بالله من الشيطان في كل موضع وفي الأوطان الحمد لله على الإيمان ثم على الإسلام والإحسان وأفضل الصلاة والسلام على الشفيع سبب الأنام محمد الواجب أن يتبع في كل ما أتى وما شرع taabiin sunnatahu bi idni rabbil aalamiin maa suyira al abraaru linnaimi wa suyira al fujaaru li jaxiimi wa faaza man dabba an il islaami bi nayli ridwaanin min assalaami bokki jullit yi bokki taalibe yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu noo ngi leen di nuyu na mu gën a rafete gën ne selle te gën ne matale diggante jullit ak moroomum jullitam di jiital ci nuyoo bi kilifa yu tedd yi teew ci jataay bi bokk yi sunu bokk yi jiitu ji barzaq ñu yàkkamti bés bii lañu ndax yi yittewoo lool ñaan yi ñu leen ciy defal lu mu bari bari duñ ci doyal waaye lu mu néew néew tamit duñ ko xeeb bés bi bokk na ci bés yi leen gënal ci bés yi bés yi ñuy xaar di ko akkawliku bés yi leen ëppal njariñ bés bi bés bu leen di bégloo la te ñaan yi ñu leen ciy jagleel te loolu rekk waral bés bi amut lu leen ko gënal fa ñu tëdd ndax xeeb nañ la ñu yóbbaale woon te mënatuñoo delsi ngir jëf lu ñu dolli ko te tëraay ba yàgg na lool looloo waral bés bi lu mat a fonk la lu mat a jox yitte la lu mat di bàyyi xel la ku ne war na cee mën a teew ànd ci liggéey bi ngir ku ne am na ku ko jege ci ñi ñuy ñaanal tey jii kon bés bi bésu jullit yépp la moo waral ñépp war nañ cee sant bu baax sant bu baax yéen ñi ko taxawal ak ñi leen ciy jàppale ñépp ba muy amee nu rafete nii at mu jot yal na yàlla nangu lépp te yàgg nu koo man loo nu yàgg leen koo defal te mu gërëm nu ci mbokki jullit yi mbokki taalibe yi kullu nafsin daiqatul mawt mépp mbindeef muy dund rekk di nga mas a dee kullu shay'in haalikun illa wajha sunu borom subhanahu wa rekk rekk moo ko dul def amut ku gëmul ne dee am na muy ki gëm yàlla ak ki gëmul yàlla waaye dañ koy fàtte fàttelu duñ ko nangoo xalaat ngir guddal seeni mébét ci àdduna di jëf-jëf yi ni ku fi du jóg mukk bul jàpp ne danga doon ndaw ba dee war a teel ci yow ngay fo ak a caaxaan foog ne li la dese ci cig dund bari na nga naan dangay dund sag ndaw di wutal sa bopp ab àpp naan boo ca yeggee bàyyi yépp demal ca armeel ya ñaata xale ñoo fa tëdd ñaata ci say moroom nga dégg ñu la jiitu ji barzaq ñaata ci xale yu la jege nga fekke seeni dëj xamal ne am na ñu judd rekk dee am na ñu dal jàng rekk dee am na ñu jot seen lijaasa rekk dee am na ñu tàmbalee liggéey rekk dee ñépp di ay ndaw di ay góor di ay jigéen bul jàpp ne danga taaru ba doo dee yàlla bind la bindiin wu rafet ku la gis bëgg la ngay jaay sa taar di fooy sa bopp foog ne luy wéy la dee néegu te yóbbu kenn bul jàpp ne danga am alal wala pouvoir muy darajey àdduna ba dee war laa teggi dund gu neex goo mën a dund ak lu say docteur aay aay du la tee dee nu sa pouvoir mën a toll ak lu la nit ñi ragal ragal du la tee dee lu say compte bancaire fees fees malakul mawti mënoo koo ger nu sa doole mën a toll malakul mawti ragalu la faaw dina la rey bokk yi adduniya faaniya àdduna day jeex kullu man alayha faanin lu fi nekkit du fi sax lépp a fi jóge mbokk mi sa bis yaa ngi dem sa weer yaa ngi dem sa at yaa ngi dem sa dund gaa ngi wéy te sab àpp du toxu la yastaxiru saatan ndax yaa ngi ciy bàyyi xel ndax yaa ngi bàyyi xel li la fi indi li tax yàlla sàkk la ana fi defagum lu lay jariñ yow ci sa bopp tey ak ëllëg ana fi defagum lu nit ñi di jariñoo boo leen gannaaw bu ji sa borom ndax yaa ngi dajale yóbbal balaa sa àpp agsi xamoo kañ la xamoo fan la te loo mën a yóbbaale lu mu bari bari du fa doy laa taatikum illa baxtatan dee buy ñëw du tàggoo de mën naa ñëw waxtu wu ne mën na laa fekk fu ne ndax yaa ngi koy waajal bés boobu ci la sa dund di jeexe tàkk fii ci àdduna bés boobu ci la say jëf di dog ba faaw dootoo jëfati lenn lu lay jariñ bés boobu ci ngay teqali kook say waajur sa njaboot say bokk say soppe say xarit ba faw nag bés boobu ci la sal xisaab bi dafa am boroom xam-xam bu wax ne ñaari guddi yii jullit bu ne war na ko def ci agendaam ngir di ko xalaat waxtu nekk guddi gi nga xam ne sa kër nga nekk yaag say soxna say xale nga nekk ci xéewal di dund nam la neexee am wér gi yaram am jàmm ju yaatu ngay ree say doom di kafak ñoom ñoom ñu di la ree di kafe ak yow ak guddi gi nga xam ne tawat ñëw na gannaaw sa wér néew doole ñëw na gannaaw sa am kàttan jaaxle ñëw na gannaaw sa am jàmm njàqare ñëw na gannaaw mi nga doon dund nga tàmbalee xalaat ci sa dund gi jeex nii di xalaat ci sa doole ji sànk ci neen di xalaat ci alal ji daan dajale ci kër yi nga daan tabax ngay am lu la metti lool ci àdduna mii ngay teqalikool tey ngay am lu la metti lool ci sa njaboot bu sew gii mënalul seen bopp dara ngay ragal ñu ñu sonn sa gannaaw ngay ragal ñu sànku sa gannaaw te tawat ji da lay yóbbu saafara mënatu ci dara docteur bi ay pexem jeex na ci soppe yi ak xarit yi ña amatuñu ci yow yaakaar wa jaat sakaratul mawti bil xaq dalika ma kunta minhu taxiid sukuraat agsi na nga mujj soxna yi njaboot gi xarit yi ñépp wër la nga di leen xool te doo mën a def dara nga di leen dégg te doo mën a wax dara ngay wëlbati say bët fu nekk ku ne nga xool ko ñoom ñi di la xool waaye luñ ci man dara lottu nañ ci dellu si la fa lawla ida balagatil xulquuma wa antum xiina idin tanzuruuna wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walaakin laa tubsiruun bés bi bokk yi lu mat a waajal albarra ibnu azib radiallahu anhu nee na dañoo àndoon ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci benn woon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tiim bàmmeel ba di jooy di wax naan yaa ixwaani li misli hada fa aiddu yaa ixwaani li misli hada fa aiddu yéen mbokk yi waajal leen lu mel nii yéen mbokk yi waajal leen lu mel nii nettali nañu ne Seydina Ousmane ibn Affan radiyallahu taala anhu bu masaan ànd ci rob day jooy ba teqalikoo sagoom ba dañu koy mujj yenu ni ñu yenoo ab néew dal di yóbbu këram benn bés ñu laaj ko ne ko lu tax nga mën a fàttaliku aljana ak sawara te doo jooy te boo tiimee bàmmeel rekk di jooy Seydina Ousmane radiyallahu taala anhu ne damaa déggoon sama soppe ba rasulullahi sallallahu alayhi wa mu ne alqabru awwalu manzilatin min manazili al axira fa ida naja al abdu minhu faqad aflaxa wa saada wa man lam yanju minhu fa ma baadahu ashaddu mu ne bàmmeel mooy wàccuwaay bi njëkk ci wàccuwaay alaxira jaam bi bu muccee ci tiis ya fay xew dina bég dina texe bu ca mucc nag na xam ne lay ñëw gannaaw bàmmeelam mooy gën a tar sallallahu alayhi wa sallam nee na alqabru rawdatun min riyaadi aljanna aw xofratun min xufarin naar mu ne bàmmeel ab jardin la ci jardin àjjana ya waaye nag ci ki nga xam ne dafa nekkoon ci li neex yàlla wala am xunti ca sawara waaye nag ki nga xam ne dafa nekkoon ci sofaan bokk yi bépp tukki bu ñuy waajal ak yóbbal tukki bi àllaaxira moo ko gën a <clears throat> ndax sori yàgg na metti na raglu na yóbbal bi gën ci yóbbal yi nag mooy ragal yàlla mi nu sàkk moom na wa tazawwadu fa inna xayra zaadi taqwa sunu borom subhanahu wa moo nu sant nu fàggu bi yóbbal mu ne nu nag ragal yàlla moo ca boo ragalee yàlla di nga topp digalam di nga moytuy tereem boo ragalee yàlla di nga ko bàyyi looy def boo ragalee yàlla nga waajal sa bàmmeel ndax di nga xam ne yàlla mën na lu ne te sañ na lu ne bokk jullit yi bokk taalibe yi nañu góorgóorlu kon ci jaamu yàlla balaa dee dox suñu digganteeg moom nu fonk julli juróom te di leen gaawe nuy woor weeru koor nuy natt azaka ku ko alalam mate aj màkka bu jàppande te lépp nu dëppale ko sunna Mustafa sallallahu alayhi wa sallam bokk yi nanu tuub suñuy bàkkaar balaa dee dox suñu digganteeg moom وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن yàlla du nangu tuubu ku àppam agsi mbokk yi nañu gaaw ci jëfu yiw balaa dee dox suñu diggante moom du fausser rendez-vous mukk de te du mayee benn simili mbokk yi nañu wattandiku tooñ suñu moroom tey jéggulunte xàq yi balaa dee dox suñu diggante moom yóbbaale ay xàq ci sa bàmmeel mën naa waral mbugal mu metti say waajur ñi nga bokkali waajur say jege ñaale ci deret say soxna sa boroom kër yow jigéen ji sa njaboot ñépp a am xàq ci yow joo war a matale muy loo war a xam te di ci def loo man ak mbokk des koy jokk des koy rafetal des koy sàmm say dëkkandoo dafa am xàq ju la war sa digg ak ñoom na di yaatalante di jàppalante di wóoloon di walloonte ci seeni jafe-jafe di seet di séddoo seen mbégte <clears throat> ki nga bokkal ab dëkk wallam réew dafa am xàq ci yow loo ko mënal te defaloo ko ko te mu leer la ne aajo woo na ko xàq la jooy layoog moom ëllëg yowmal qiyaam ni ki noonu li mu moom nga xañ ko ko tamit dina ko layoog yow ëllëg yowmal qiyaam ki ñu jiital dafa am xàq ju gàllu ciw loosam diggam ak ñamu jiite lañu la jiitalee da nga koy jox sa yitte jox ko sa waxtu jox ko sa kàttan jox ko sa alal lu mu néew néew ngir kóolute dafa diis yaakaar dafa rëy te wekkuñu ko ci kudul yow yow rekk yaa leen ci doy muy xàq yu diis gan yoo war a xam te matale ko ba nga nangoo ñu jiital la lu ko may rekk kenn ku ne ca ña nga jiitee dina taxaw ak yow ëllëg ca kanamu suñu borom subhaanahu wa taala layoo koog yow <clears throat> nga fay ko lépp lu la waroon ci moom mbokk yi mbokk mi gën a foor nag mooy ki nga bokkal yàlla bokk moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokk moom alquraanu karim bokk moom diine ji di kon mbokkum jullit mbokk gënu koo foor kon waxtu bu jàmbi ne ashhadu an laa ilaha illa wa ashhadu anna muhammadan rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam da ko war a jàpp sa mbokk ndax man innamal ne ixwa yàlla moo ne jullit yépp ay mbokk lañ fa aslihu bayna axawaykum mu sant nu nuy defar di rafetal diggante mbokk yi kon mbokk yi xàq la ci sunu digganteeg suñu mbokkum jullit nu jàppe ko ne suñu bopp di rafetal sunu digganteeg moom ba nu yàlla xamalee ne ay mbokk lañ danoo sant ñu boole sunu bokk benn la sunu bopp moo bi hablillahi jami'an wala tafarraqu muy xàq yu dox sunu diggante kon warunoo wax lu nuy teqale warunoo def lu nuy noonale ki nu war a jàppe sunu noon ñun ñëpp mooy noonu bi yàlla bi war a jàppe sunu noon ñun ñëpp mooy noonu bi lislaam bi noon bi nga xam ne waxtu wu nekk mi ngi xeex diine waxtu wu nekk mi ngi ruuxale jullit yi waxtu wu nekk mi ngi yàq jikko yi waxtu wu nekk mi ngi woo jigéen ci lu waroog lislaam di yàq yarub xale yi noon bii nag moom dong ngay profito ci sunu xàjjali ko mbokk yi nasaraan bi dara yitteelu ko lu dul xeex lislaam dara yitteelu ko lu dul jullit ñi réeroo di xiiroo ak a ŋaayoo rawatina fii ci sunum réew bennoo ci gannaaw sunuy kilifa di déglu genn kàddu bu ñu sañoon ñoom jëlee ko fi moo taxit ñi ngi ciy defi pexe waxtu wu nekk yenn médias yi di leen ci jàppale ak réseaux sociaux yi mbokk yi kon ñooñu ñooy sunuy noonu bokkuñu ngir bu mu tax ñu jàppantee noonu bokkuñu tariqa bu mu tax ñu jàppantee noonu bokkuñu xalaat wala gis-gis bu mu tax ñu jàppantee noonu nun ñépp a maase nangu ne amut benn buur bu dul yàlla tabaraka wa taala te sayyidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla ko yónni ci nun jaam ñëpp ñun jaam ñëpp te yónniwu ko lu dut mu nekk yërmande ci nun ñëpp wa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin kon dara warunu lu dut dooni bokk yu benn la seen bopp cheikhuna alxadim radiallahu taala anhu nee na aleykum wa ya mahchar al ixwaani bi taati allahi bila udwaani yéen mbooleem mbokki jullit yi li leen war mooy ngeen topp yàlla te kenn bañ a jàppe moroomam am noonu cheikhuna alxadim radiallahu taala anhu nee na taxaababu fi llahi dil jalaali bila tanazuin wala idlaali nee na yéen mbooleem mbokki jullit yi soppante leen ngir jëmmi yàlla ji tey bañ a xëccoo di xiiroo ak a ŋaayoo ak di réeralante cheikhuna alxadim radiallahu taala anhu nee na inna taxaabuba huwa al imaanu li ahlihi sururu wal amaan yéen mbooleen mbokki jullit yi xam leen ne soppante ngir jëmm yàlla ji mooy ak ngëm yàlla te loolu mbégte la ak sécurité ci yéen ñi koy def cheikhuna alxadim radiallahu taala anhu nee na ama taxaasudu fa li shaqaawa yaquudu ahlahu bila xalaawa yéen mbooleem mbokki jullit yi xam leen ne ñiy añaanante ak a bañante ci texe di rek lañuy ñuy mujj aku naqar cheikhuna alxadim radiallahu taala anhu nee na wa afdalu lxisaali xubbu fi ljamii wa fi rasuli xibbihi nicma alxalil yéen mboolem mbokk jullit yi xam leen ne jikko jiggan ci jikko yi mooy bëgg sa mbokkum jullit te yàlla ko yonenteem sallallahu alayhi wa sallam rekk tax bokki jullit yi bokki taalibe yi kon xàq la ci nun jullit yépp ñu bëggante soppante wóolante ñuy muñalante di jéggalante kenn ku ne la mu gëm ak ka mu gëm ñu nangul ko ko wuute gis-gis mosu fee jóg bul ne mukk yaa nekk ci dëgg sa morooma juum segam nag xam-xam dafa yaatu ba kenn mënut a xam lépp lépp lu la ump rek boole ko ca la nga xamut waaye bu ko weddi nanu góor góorlu kon ci benn la suñ bopp ñun jullit yépp bokk yi bennoo day warteef ci nun ñi juba di sax ñi ngi bennoo muy noone lislaam yi ngir sottal seeni pexe lu tax kon ñi jub mënuñoo boole seen bopp benn la seen bopp bennoo day tax am doole lépp lu nu song rek daan ko ndax dooley mbooloo dara attanu ko bennoo day waral wegeel benn noon du leen ñeme song ku ci wéetoon sax daañu la ragale mbooloo bi bennoo day waral xëy ba ku leen xool jox leen cër doo leen ñemee def mukk ab safaan bennoo dina woyofal ab yan lu ñu leen mën a teg ñu àttan ko ak lu mu dis dis ndax bu kenn ku ne compee ca disaay ba mu woyof ci ñëpp bennoo dina jàppandal ab dox dina ko gaawal maanaam lépp lu ngeen bëgg a def dina yomb fu ngeen bëgg a àgg tamit dina gaaw bokk yi bennoo day yokk yitte ci sa jublu di ko dëgëral di la tax a farlu te di ko barkeel bokk yi lislaam day lu xër lool ci bennoog jullit yi alquran wax na ko ay yoon benn ci aaya jooju ñu tuddoon sànq muy wax waxtasimu bi hablillahi jamian ibnu mas'ud radiallahu anhu ak ñeneen ci gaa yu baax ya nee nañu fa hablullahi aljamaatu waljamaatu najaatun buumu gi yàlla gi sunu borom sant ñu jàpp ko mooy mbooloo mi te mbooloo mi nee nañ ak mucc la ñu dégg ci ne tabaraka wa taala danoo sant nu boole suñu bopp ba doon wenn say ndax mbooloo mi ku ci bokk nim ñu ko sant di nga mucc ci lépp loo ragal te noonu la ko sante woon moom tabaraka wa taala yónnente yi jiitu woon assalaatu wassalaamu ala nabiyina wa alayhi wa ajmain ñoo seeni nit digaloon leen ñu bañ a teqalikoo mukk sharaa lakum min addiini ma wasa bihi nuuha walladi awxayna ilayka wa ma wasayna bihi ibrahima wa muusa wa isa an aqimu addiina wala tatafarraqu fihi albagawi rahimahullahu nee na baata allahu al anbiyaa kullahum bi iqamati addiini wal ulfati wal jamaati wa tarki alfurqati wal muxaalafati yàlla dafa yónni yónnante yépp ci taxawal diine ak soppante ak boole seen bopp te bañ a wutee ci lenn te bañ a te bañ a xàjjalikoo mukk kon yàlla yàgg naa santaane bennoo yàgg naa tere ak wuutee aku teqalikoo sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam fedd li na ndigal yooyu ci ahadis yu bari ngir soññi ñu ci ñu gën a boole suñu bopp moo wax ne aleykum bil jamaa wa iyaakum wal furqa fa inna shaytaana ma al waaxidi huwa min al man araada buxbuxatal jannati fal yalzimil jamaa sallallahu alayhi wa sallam danenu warteef la ci nun jullit yépp ñu boole suñ bopp bennoo ba doon wenn say tey wattandikoo ak xàjjalikoo ndax kat seytaane mi ngi ànd ak ki génn ci mbooloo mi di dem ak boppam te ñaar ñaar ñu boole seen bopp la seytaane di gën a sori ci kenn ku beddiku kon lu mbooloo mi gën a takk gën a bari seytaane di leen gën a daw mu teg ca ne ku bëgg ci xéewali ajjana yi nag na nga taxaw mbooloo bokk yi kenn mënul boppam lépp kenn ku ne soxla na ndimbalal moroomam ku wax ne mën nga ñàkk nit ñi juum nga ak loo bari le bari barile alal ak loo am am kattan bés dina ñëw nga aajowoo sa morom kon bala nga caa àgg amal ak moom jàmm te benn li seen bopp misaal mi rek mooy ana ku xam ci yéen ku koy sang bu faatoo ana ku xam ci yéen ku koy jullee ana ku xam ci yéen ñiy teew buñ koy jullee ñu ko ñaanal ana ku xam ci yéen kuy gas bàmmeelam ana ku xam ci yéen kuy teew ñu koy denc di jàng fatiha ak lixlaas di ñaan yàlla yërëm ko moo ne de mën naa doon koy doy mën naa doon koo xam ne boo ko rombee du ko mën naa doon koo xam ne yaa ngi koy jëw di wax ci moom du ñaaw mën naa doon kuy sàkku ci yow ndimbal nga gàntal te fekk mën nga ko mën naa doon koo ñàkk yërmande ci moom mën naa doon koo yàqu deram ci barab te moo ne de la mu lay defal mënuloo ko sa bopp te moo gën àdduna ak li ci biir muy ñaanale yërmande yàlla kon mbokk yi nanu teel a boole suñu bopp benn la suñu bopp di diisoo di demlante di dimbalante bañ a xajal suñu diggante doon benn loxo di yëkkateendoo di tegandoo doon jenn jëm lu metti sa moroom metti la ñu bokk naqar bokk bànneex bokk lu ñuy bañ te di ko xeexandoo bokk lu ñuy bëgg te di ko sa sàkkoondoo yooyu yëpp nag munta am mukk fi ak raxasuñu xol yi ba mu set ci kañaan ci coxor ci jëw ci rambaaj ak yu mel na ñoom ci mbon ñu bëggante soppante wóolante yéenante jàmm kenn ku ne li mu bëggal boppam mu bëggal ko moroomam ñu yërëmante kenn ku ne la mu am ci xéewal ñu yéene ko na ko yàlla def ñu nangul ko ko wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu